axusu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala xayri xalqihi wa xayri xadimihi wa fadilihi wa samiyihi wa malaamihi wa baabihi wa sayxi wa sallim wahabli al ilhaama walbaraha wa xassilil lisaana walyaraha rabbi qad aataytani min al mulki wa alamtani min taawili lahaadisi faatira alsamawati wal ard anta wali fi dunya wal axirati tawfani musliman wa alhiqni bi saalihin asalaamaaleykum mbàkke sab géewe lay nuyoo kurée réew nag Babacar moo de aw turam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak xaalis di ñëwaat ci seen jataayu xam sa gént ci seen sit bu mag bi ñuy wax 28 pro ñu baaxoo ci ànd ak yéen incha allah xam ngeen ni sunu jataay yi jàll waxoon nañ leen gënt rapport bi mu am ak diine ci yonent yi kenn ku ci nekk ku mel ni yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibrahim alayhi salaam ak yonent yàlla yusuf yal na yàlla dool leen leer kenn ku ci nekk am na rapport bu mu am moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko firi di laaj lenn saaba yi bu jullee fajar ba noppi ndax amut ko gént ci yéen waaye loolu yëpp daf doon wane rek gént ni muy ñëwee ñu koy wax ni ruxya ak xolmu ruxya mooy jóge ci suñu borom xolmu nag seytaane lay jóge ak jinne yi li ëpp nag ki suñ côté yi xam naa loolu moo ci gën a bari moom ñu ci bari dañuy yor ay rab ba fees rek bu ko defee li ñuy gént yëpp foofu lay màcc jëm bu ko defee nag xam naa dañ leen di andil ay quelques gént yoo xam ni maalaayaan sarif la yoo xam ne du soppeeku ndax gént ñaari nit mën nañ gént génn gént ci benn benn benn façon bu bokk te duñ bokk piri li koy waral mooy nit ñi bokkuñu wala bu fekkee ñoo bokkit jamono jiñ koy gént bokkut bu ko defee nag yu mel noonu yëpp dafay sensé version bi waaye am na ci yoo xam ne moom niñ koy waxee maalaayaan sarif la moom saa boo ko génte rek dangay xam ne nangam la masalan gént lu mel ne gént di yéeg xam nga gént di yéeg moom lu mën a xew rek lu baax lay doon ak yokkute lay doon saa bu nit géntee di yéeg rek moom ca la mu nekk ak la muy yëngu ma nga cee def ay jéego di yokk lu jëm kaw léeg-léeg nag nga gis ku gént di yéeg ay escalier rek mu tu ko ticc nga xam ni yéeg ay escalier ni mu yombe waaye day mel ni rek comme munta yéeg day mel ni màggetum juróom-ñett fukki at <laughs> di jéggeeg di tànk yi di metti ko defee nag yu mel noonu day wane ni maanaam li yëngu wala yokkute gi dina am jafe-jafe tuuti dina jafe daal am na ay gàllankoor loolu lay signalé tax gént message la rek buy ñëw ci nit ki comme ni ngay jékki-jékkee sa téléphone sonné nga xam ne am nga message léeg-léeg nga xool ko mu doon message yi mbégte yooyu <laughs> lu mel ni ay waree joni joni yooyu nga xam da ngay kontaan lool waaye léeg-léeg itam nag nga xool mu nekk ay bonus ak yu ñaak fayda yooyu nga xam ne <laughs> gars yi ñoo la koy envoyé rek lu ci mën a xew rek gént noonu la demee message la buy ñëw bu ko defee gént bi yéeg noonu la demee kon foo ko defee rek na nga xam ne lu baax la moo xam benn escalier la wala ñaar wala nga équipe étage lu mu gën a kawe nag gën a baax bu ko defee itam lu mel ne gént di naaw gént di naaw itam kaaraange la ci boo xam ne lay dàq bu fekkee ñu ngi lay dàq nga daw ba mu ba nar laa dab nga naaw boobaa day wane yow am nga kaaraange yàlla musal na la bu fekkee nag da ngaa jékki naaw noonu loolu ak yokkute lay doon dafay tegtale maanaam ak yëkkatiku ci mbir bu fekkee nag da ngaa ci biir asamaan si moom day gën a day màcc ci wàllu xam-xam ak yu mel noonu bu ko defee yooyu yëpp mbokk dañ koy gént lu ci bari du soppeeku bu ko defee ku ko gént rek dina xam li mu doon lu mel ni itam niñ koy waxee gént di sëy nga xam ni ñu ci bari daf leen di sonal am na ci nag yoo xam ni nekkul rab ni ñu koy waxee léeg-léeg nit gént ko fekk ni dafa sonn rek tolluwaayam moo tax mu gént ko xelam moo ci nekk loolu moom taxul ñuy wax waaye ki nga xam ni ki muy gént xelam nekkul ci moom wala mën naa am ku mu la wala bàyyiwu ko xel wala sax gént gi mu koy gént du ko neex loolu faru rek lañ koy tekkee koo xam ne dafa am àndandoo àndandoo bi di ko foye loolu moo koy def loolu nag neex naa xam bu fekkee ni kii gént di sëy bu géntee bu yeewoo xolom day naqari dafay xam ne li mu gént nii neexu ko ba noppi dina sentir yaram mu xaw a diis wala journée bi du du du firi daal dafay tàyyal loolu rab moo koy def bari na nag ñu sonal moom góor ñeeg jigéen ñi ñëpp la sonal waaye nag mën naa waral ci lu mel ne yeex am boroom kër bu dee jigéen bu dee góor it mën naa yeex am soxna fu mu ngoroo ba ngoro commencé neex rek problème judd xam nga loolu doy waar la bu ko defee dañuy wax ni daa réew wala bëggutu sëy wala nangam fekk ni loolu moo koy def rab bi mooy feeñoo noonu bu ko defee di ko foyee mu koy gént comme nag dafa invincible te dafa fiir ku ñëw di wax ak yow dina ko xam dina ko gis day fexe dox seen diggante rek am na ci yoo xam sax day def ba kooku bu ñëwee sa kër comme day am loo koy xeeñ wala lu soof daal loo xam ne dut la bëgg a day taayal ci yow loolu nag ñoom ñoo koy def bu defee kon koo xam ne mi gént di sëy rek mu xam ni bu bu baree rek bu baree rek moo xam ne normal bu fekkee nag parfois lay nekk léeg-léeg wala mu sonn wala yu mel noonu loolu moom xel ma na koo nangu te itam lu naturel la waaye bu fekkee daal dafay bari wala koo xam ne dem na baa am kër di ko gént wala ko am soxna di ko gént te ki muy gént xelam nekkul ci moom ba noppi buy gént itam ci biir gént gi du nangu dañ koy forcer en général bu dee rab la toujours ci buy def ak yow rapport da lay forcer da ngay sentir ni nangu loolu nag mooy wane ni lii naturelul rab la bu ko defee nag loolu mën ngaa dem ba ci biir sëy bu dee góor mën na ko téye dur doonati góor te yu bari yu ñuy jàmbat wala yu mel noonu loolu dina ko def bu fekkee jigéen gi da ko am mën na téye góor gi bu fekkee ni góor gi amul kaaraange lool mën nay tax pour ñu ànd dina jafe wala même buñ dee àndit pour ñu juboo day jafe loolu nag bari na ñu mu gàllankoor nga xam ni dañuy toll ci sëy waaye am ngoro wu dëgër te continuer day jafe bu ko defee nag ñu mel noonu daanaka bett leen may leen wala ñu bett leen takkal leen soxna rek mooy gën a yomb waaye buñ ko waajee rek duñ ko def ndax buñ ci xalaatee rek day day jaxase seen xel ñu génn ci. bu ko defee nag mbiru àndandoo yooyu dafa am doole ci nit lool comme niñ koy waxee jamono ju nekk dafa nekk loo xam ni maanaam day manipuler doomu aadama bi wax nañ sest yu bari yu muy def ci nit. am na ñoo xam dañuy bu leen dikkalee dañuy bëgg beru duñ wax ak kenn am na ñoo xam ne seen mbokki bopp yi ñu bokkal te ñu gën leen a jigéen ñoom lañ dul bëgg a gis ak bët am na ñoo xam ne jàmbur yi lañ gën a mënal mën a jëflanteel ci kuñ bokkal kuñ bokkal moom daanaka doo leen yooyu yëpp nag àndandoo daf koy def am na ci ñoo xam ni duñ gént di sëy waaye dañuy gént di tuur ndox maanaam sawlal ngeen bal ma ci baat bi am na ñoo xam noonu lañ koy gént dañuy tëdd ci lal bi gént bëgg tuur ndox jóg dem ca fañ koy defee ndaxte ñu ngi tëdd ci lal bi bu ñu ko defee ba noppi nag yow xam ni ci lal bi lañ ko def fan yi rek maa ngi déglu benn rajo ci émission yooyu de am am soxna su koy wax ni am na borom kër ba am ñaari doom waaye daf koy def ba léegi day gént day day day tuur ndox ci lal nga xam ne loolu gént la koy dikkee gént moo tax du ko mën bàyyi parce que kii gént moom day gént day gént dem ba ca famille muy tuure ndox mu tuur ndox bi yowoo nag te xébali na lal bi ba mu tooy bu ko defee nag yu mel noonu lu ñuy faj la du lu ñuy bay bayal comme ni ñu waxee léegi rek lu xew ñu ne araam na wala nangam waruñu ko def wala nangam donte araam na it boo mënee tàqalikoog moom kon moo gën waaye boo mën a gudd moom it nga fexe ba mucc dara nekku ci ndax ad daruraat tubihul maxsuraat bu ko defee léeg-léeg yi daganut tam léeg-léeg dina soppeeku wala boog ñu wax ni laa dara darara wala diraara kon léeg-léeg bu fekkee ni lii mën na dox sa digganteeg jàmm yàlla wala mu dox sa digganteeg dund gu normal ndax dundu doomu aadama dafa yitteel suñu borom lool dafa teral doomu lépp lu koy gàllankoor rek fexe ba mu stable nekk ci jàmm loolu dafay nekk farata piir mbokk yi bu ko defee nag yooyu dafa nekk lu am solo yoo xam ni dafa mat a xàmmee bu ko defee yi ma doon wax itam gént di yéeg ni mu amee solo gént daanu noonu la mel saa boo géntee daanu moo xam da ngaa toog ci daanu wala da nga doon yéeg daanu wala da ngaa fakkastalu waaye lu mën a xew rek maanaam loolu am na lu muy yàq ci sa carrière ci sa wàllu àdduna gént nag mën na nekk message bu ñëw fekk problème bi ñëwagul boo ci teelee jóg sàkk sarax maanaam ñaan suñu borom bu boobaa loolu mën a fànq ndax buñ xoolee yonent yàlla yusuf ak géntam ga ba muy wax ni yaa abati inni raaytu ahada xasra kawkaban wa samsa wal xamara raaytuhum li saajidin ba muy wax loolu ak ba mu gént ga di réalisé wu ay at yu bari dox na fi nañ ko ci bënn ga yóbbu ko ca marché ba jaay ko jabari buur ba jënd ko mu nekk ca kër buur ba nekk fa fan yu baree bari ban màgg bañ nekk fa xale ba màgg bañ di ko sàkku yóbbu ko ca kaso ba tëj ko génnewaat ko te yooyu yëpp gént ko jafe-jafe yi nekk ci diggante bi yëpp yonent yàlla Yuusuf géntul loolu waaye dafa gént rek fukki biddiw ak benn ak jant bi ak weer di ko sujjóotal waaye ba mu demee ba nekk ca kaso ba nag yàlla dogal buur ba gént gént ga biñ jaaxlee ku ne firi sottiwul ñu indi ko mu firi ko ca lañ ko jox nag màngasini misra mu jiite ko di jënd dund ba histoire bi yaakaar naa nettali woon nañ ko fi gudd na ya ca xew yëpp xew ca ba fa mbokk yi ñëwee ànd ak seen yaay ak seen baay ba mu ne leen man maay Yuusuf rek ca lañ sujjóot gént ga doo ko réalisé wu kon gént la rek ñu jox la message bi fekk ak seegul waaye daal liñ bëgg a wax rek mooy nekkul lu ñu war a négliger bu fekkee ku yàlla dogal ngay gént la ku waree su koo négliger dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax jéem a maîtriser daf koy bàyyi xel bu gisee gént dara mu fexe ñu firil ko ko incha allah xam naa mel na ni mi ngi bëgg a gudd dañuy yemale foofu jotaay bi rek ba dellusiwaat incha allah mottali wasalaamu ala man ittaba al huda